yi ñu koy xeex depuis 2014 ça fait 10 ans de combat gis nga li ngay wax xaalis c'est trop c'est affaire décret rek ñoo xam ne xoolal du ñu ay fonctionnaire sa gi duñ fa ñëw rek ñu indi leen seen nijaay fa nekkoon di liggéey jógee fa après ñu remplacer leen nekk fa di yàq daal ñu toog et puis waxuma dara ñuy tuddee ko ministère de la fonction publique et du du du renouveau du service public ñoom du ñu mën a rénover ah yàq nañu li maa ngi koy wax gis nga fonctionnaire yu bëri démissionné nañu administration yu bëri yàqu nañu ndaxte saa bu ñu amee ay réformes ñu war a wéyal ci administration yooyu ay nit ñoo fay ñëw di def une application malveillante maanaam application bu tar bu soxor di teengal la loi de la fonction publique teg ko ci ay doomu aadama yoo xam ne tegal leen ay barrières yoo xam ne ñu mën jàll. oh alors que da boo demee feneen dans le monde damay jël bokk fi ñu gën a miin ay France ils sont en train de parler de la mobilité mën nga liggéey ba càgg bàyyi dem le président Macky Sall avant muy dem dafa war a raxas fonction publique defaraat bu gaaw dafa war a woote assise de la fonction publique gis nga fonction publique bii ñuy dem ragal naa dina indi benn crise bu gën a garaaw bii wax ji sax du question le discours gis nga débat juridique bi ndax c'est possible c'est pas possible loolu du wax ji wax ji xam nga mooy lan ku mel ne président de la république jël engagement jiite conseil des ministres ñu toog premier ministre toog ministre toog ñu tëral ñaari décret ñaari ne yii dañ koy jagal ministère de la jagleel ministère de la justice am ay wëyu ay sàmba sula baale yu jaar ci suuf soppar ñi loolu nëbb nag décret yi duñ ko nëbb six mois plus tard ñun ñu xeexaat ñu soppar ñi ko jox ko ministre de la fonction publique bi fi newoon à l'époque nax ko ils ont abusé sa confiance li am li nga foo intellectuel jox ko lan lañ ciy gagné. ñu def loolu ñu def loolu lan lañ ciy gagné. yàq yàqkat mi ngi mel ne bandi rek agresseur bi agressé bi. soxor rek ah yàq yàq yàq yàq yëfi nit am nit nit nit yu lëndëm yàq rek lañ ci jubal ña ko defoon xam nañ la na on les connaît c'est parce que ñun ay syndicalistes ñu par vocation syndicaliste du livrer moroomu kii am ñu ne diw on livre pas en pâture mais li ñuy wax dafa am ñu avons les décrets qui ont été adoptés ak décrets yi ak na mu demee parce que ñun dañoo dem ba ñu signé ko la ñu doog gis ne dañ ko soppari affaire boobu moo gën a garaaw discussion gis nga lii ba mu jibee lañ ne ne xoolal lii nañ ko régler nu mu gën a gaawee tey lii loolu moo man man man en tant que. président décidé ñeneen jaar ci suuf. jaar ci suuf soppi ko ba pare nag di di ñu invoquer ay texte de droit yoo te teg invocation yooyu dara du ci dëgg dama lay jox benn exemple en 2010 am nañu ay exemple quatre exemple xoolal ay corps yoo xam ne dañu leen def nañu lii lii ñuy dund dund nañ ko sans problème. décret yaa ngi fii yi wane ne ils son ils sont passés à la à une hiérarchie supérieure sans aucune formation loolu sax du débat débat juridique bi loolu duñ ko duñ ko jéggi mais li am liy wax li liy aale kàlla ji mooy président de la République recevoir ay citoyens sénégalais en syndicat toog waxtaan ak ñoom deux heures de temps tombe ak ñoom d'accord le 5 avril 2018 la ñu président Macky Sall recevoir. waaw 5 avril. 2018 2018 waxtaan ak ñun ñaari waxtu. 2018 waaw 2018. bay élection la aussi. non déet non avril laa la avril. waaw waaw maanaam avril xool euh, avril mu recevoir ñu waxtaan. ci moo tax ngeen bëggaat 2023 mu jël leen avant 2024. non parce que day dem lii moo ko engagé woon mu nekk réforme yu am solo kon da ko war a régler avant muy dem. parce que l'histoire retiendra te l'histoire retiendra loo xam ne du rafet ci moom bu demee te dem te lii lijjantiwu mu recevoir ñu le 5 avril 2018. conseil des ministres le 25 juillet 2018 donc avril mai juin juillet août non avril mai ju mai juin juillet trois mois plus tard mu conseil des ministres mu adopté ñaari décret respecté engagement moom pare na ca ministre 2018 ba léegi waaw avril la ñu recevoir trois mois plus tard il fait adopter les deux décrets kon moom wàccoo naa moom mais liggéeyam dafa am ñu ko yàq léegi loolu 2018 mooy daw ba 2018. waaw 2018 gis nga ba ñu adopté décret xam nga boo ko adopté tey conseil des ministres même pas fukki fan ñu signé ko. waaw saay saay yi nekk fonction bi dañoo ak ak ay ay ak ñu ñu lëkkaloon ministère de la justice dañoo nëbb ñaari décret yooyu juróom-benn weer. il a fallu que ñu xeex la veille des élections comme ça. ñu signé décret ba xam nga lañ ko signé. benn bi le 30 janvier 2019 juillet 25 juillet 30 janvier 2019. beneen bi ñu signé ko 5 février. 2019 maanaam bi président nekk en pleine campagne électorale léegi mu nekk loo xam ne loolu mooy li jaral lijjanti ba ab bu ci droit discussion de droit bi donc léegi aya sa jeex na pour terminer bras de fer bi loolu moo lan moo ko mën a dégérer euh, bras de fer bi il faut que président de la république wala premier ministre jël les affaires en mais parce que le ministre de la fonction publique bii ñu gis ba il est incapable de régler ce problème parce que apparemment il est sous influence de personnes qui sont à la fonction publique qui lui font croire que ils ont la connaissance infuse du droit de la fonction publique alors que ñooñu mënuñu dara moom moo waroon user de son autorité dire que mon collègue ministre veut faire telle réforme yéen maay seen patron def leen nii d'accord mais il ne l'a pas fait comme il manque d'autorité nous demandons le de venir en aide au ministre de la justice ou le président de la république de venir en aide au ministre de la justice parce que li dafa créer une tragédie au parmi les travailleurs de la justice mais plus particulièrement les greffiers mais parce que li may wax yépp maa ngi wax greffier mais y a un personnel aussi qui doit entrer dans le corps des assistants des greffes de parquet te par des régions pédagogiques moo tax man ma bàyyi boobu di wax bi uniquement pour gars yi mën a comprendre a deux il y a le corps des assistants des greffes de parquet pour des raisons pédagogiques pour nit ñi mën a comprendre parce que di tëgg góor di tëgg droit day xaw a métti moo tax ma génne benn ñu mën ko comprendre mais c'est deux catégories de travailleurs dont les carrières sont sacrifiées par des gens obscurs terrés à la fonction publique qui tiennent en otage le ministre de la fonction publique donc président de la République en tant que garant du fonctionnement des institutions le président de la, le premier en tant que chef du gouvernement et quelqu'un qui a la prétention de prendre la destinée des Sénégalais en main na ñëw régler problème bi d'accord